man maa ngi tudd alfa sant Ndiaye waaw dëkk Ndar Saint-Louis Sénégal doon fa coordonnateur u marchand ambulant bu Saint-Louis. tey li waral sunu ndaje mi tey dañoo ànd ak sunu kilifa bopp di Cheikh Abdoulaye Faye ak bépp kilifa goo xam te yàlla dogal na nga doon marchand tablier nekk ci biir Saint-Louis Sénégal tey ñu am tey ñu am fi ndaje bu rëy. bëgg wane suñu bopp ba Sénégal yi xam ñu à 100 pour cent donte xamoon nañu sax waaye ndaje moom it di ci jiitu mooy kilifa dëkk bi di kilifa réew mi di président de la république ndax dañoo bëgg mu bàyyi xel ndaw ñi rawatina marchand tablier yi rawatina marchand ambulant yi ndax ay ndaw lañu yu am jom nangoo liggéey lool gëm seen bopp ndax marchand tablier laa gis ak marchand ambulant 6 heures du matin la ñuy xëy balaa ñoo dugg seen kër 21 heures wala 22 heures kon ndaw bu kon ndaw su melee noonu si réew kooku boo ko jàppalee tuut rek ak say kon da ko war a bàyyi la mu yor mais jàppale ñu di ñu buntu xataal di fu ñu toll ndax fitnaal weesootul nga war a jox nit liggéey joxatoo ko liggéey war koo dimbali dimbaleetoo ko war a jox nit liggéey joxoo ko liggéey. war koo dimbali dimbali woo ko fa mu fa mu laal as néew dafa taqale saa yu la neexee yëkkati ko fa saa yi chaque jour bu la neexee rek yow lépp loo sant si marsan tabri rek nga def ko ci moom te loolu jaaduwul ñun tey li ñuy lancé mooy dañoo bëgg képp kuy dégg kàddu gi rawatina nga doon kilifa ci réew mi nga xam ni mbaam gàtt na waaye nag ci jur gi lañ bokk te ñun sàccuñu fennuñu toxuñu yàmba jëluñu alalu jàmbur te it kenn dégguñu si taree caaxaan ndaw bu melee noonu nag da ko war a encouragé mais war a koo découragé kon dañoo bëgg tey message bi ñuy lancé ni ñëpp dégg ko ndax euh, bu dëkk bu la yàlla joxee ay ndaw ñu doon ay ndaw yu am jom nangoo liggéey dóor waa rek lan xam ndaw yooyu boo leen jàppul beneen ndaw boo jàpp ko ci nga ko te léeg dañuy dimbali ñoo xamante ni lu gën a jege gën a yey chaque jour ñu dimbali fi ñoo xamante ni leer nañu ni li ñuy dimbali soxla wuñ ko nga fekk ñu ko soxla téeméer junni yoon nga wàcc leen fa dem di dimbali ñeneen loolu nag moo war a jeex ci réew mi. ak saa yu kon waaye ñun li ñuy saaku ci état leen dong la li ñuy sàkku ci état leen kese la état nañu organiser organisation nag weesootul leen nga fekk nit fi muy lal donte du yoon mais nga organiser ko nan nga koy organiser. wutal ko site bu baax tabaxal ko ko defal ko ko marché boo xam ni ak saa mucc na ayib ba pare ni ko ñëwal fii koo xam ne ni organiser nga ko teg ko ci condition yu baax kooku laataa nga ko ñëwal fii sax moom moo fay dem mais nag organiser woo kenn tabaxoo et tabaxoo marché defoo dara ba pare ñëw rek jóg jóg ñëw rek tëb tëb ni la jógal fii loolu ci boppam lañ bëgg mu dañ ci même réew rawatina Sénégal te ñun loolu ñun li ñu koy jànkonteel dafa bari trop trop ñun marchand ambulant au Sénégal ñun daanaka mën naa ni ñun nawlawuñu te naa dañu war a nawloo ndax population Sénégal bu dee 100 mën naa ne 90 yëpp ay ndaw lañu 70 yëpp boo leen jëlee ay marchand ambulant te marchand ambulant yi ku ne ngi ku ne ngi si ñu bàyyi loolu xel da gis ku jàng ba mu bag ñu am massa dëkk bi doxul amuñu liggéey force dañuy marchand ambulant yi nga gis ku dawal ba traité wala mu jàngi métier ba qualifié man bi di wax ne maa ngi transport mais ku jaaxle rek ci marchand bi laa ngay daw ñëw ndax moo doon métier boo xamante ni ak say kon kenn du ko jàngal kenn te ku jaaxle it fa nga jëm kon faaw ndaw ñu mu leen di bàyyi xel ay nit ñu diplôme ngi si ay nit ñu am yar ñoom teggin ñu jàng lool ba yër seen këyit kon faw ñu bàyyi loolu xel te xam ne beneen fu nu mënti organiser it nag te organiser nu marchand ambulant ak say kon defuñu dara ndax marchand ambulant ñoo ëpp doole ci Sénégal fekkee bëgg nañoo dégg-dégg ay ndaw lañu dëkk nag bu la yàlla dénkee ndaw ndaw yooyu da nga koy fonk ndax ndaw yooyu ëllëg ñooy doon mag te mag ñooñu ëllëg ñoom ñooy tabax réew mi kon faaw faw faaw daal say ko waaw salaamaaleykum man la Abdou Lahat Faye di président marchand tablier bu Saint-Louis nekk président marchand tablier bu Sénégal. waaw mmh. <coughs> ah, kuréel gi li ñu ci jublu mooy gis nañ ne. Euh, marchand tablier yi nekk biir Sénégal chaque jour dañuy dund ay jafe-jafe ñu jàpp ne mbooloo mooy doole te jafe-jafe bi waa Thiès di dund moom la waa jurbel di dund moom la waa Touba di dund yeneen régions yi wër Sénégal yëpp koo ci dem même problème bi même problème bi la ñuy dund donc ñu ne pourquoi pas ñu war a mën a organiser wu nekk benn def benn kuréel muy kuréel gi ñu taxawal muy association marchand tablier du Sénégal waaw ah, ban ko defee nag ah, yaa ban ko commencé yàggul mais gis nañ ne mu ngi commencé indi ay njëriñ donc jafe-jafe yi ñuy dund dëgg dëgg dëgg moo tax ñu organiser wu pour structurer wu nekk benn yëkkateendoo di tegandoo loolu moo waral sunu kuréel googu gis nañ ne nag jafe-jafe yi euh, euh, mu ngi wàññeeku mu ngi am mais mi ngi wàññeeku parce que lépp lu organiser wu euh, état dana la bàyyi xel te wax dëgg yàlla bu dee organisation rek am nañ ko. Mhm. bu doon booloo loola loola euh, yàgg nañ ci. loolu avant élection sax ñu ngi doon organiser wu parce que xam nañ ne euh, dama naan jaaykatu caaf bi sax carte d'identité day voté kon commerçant bu mag beeg bu ndaw bi ñu ñëpp yem carte la état soxla te ñun ay carte lañ yor donc lu ñu bëgg daal mooy ci gàttal ñu jàppale ñu bàyyi ñu xel te xam ne ay ndaw lañ ci dëkk bi lañ bokk ci leen dëkk donc cër bi ñu jox commerçant yi jox ko yeneen yeneen secteurs yi bu ñu ko joxee rek waaw loolu moom yaakaar naa lu ñu bëgg ñun mën nañ koo def mais actuellement nii daal li ñu bëgg mooy état bàyyi ñu xel bu baax a baax bëggatuñ dugg ci gaal yi ndax bu buñ dee ñooy perte bëggatuñ topp désert bi di dem wala ñuy tukki di jàllantu des fois ay jafe-jafe lañ ci jëlee ah, ay doomi sénégalais lan ndeem yeneen étranger yi ñoo ñëw di tekki ci dëkk bi waxuma laa ñun ay sénégalais donc dafa jot ñu toog ci dëkk bi nag suñu ay àq ak yelleef yi nga xam moom la ñu am ñu laaj ko ñu jox ñu ko loolu moo waral sunu sunu sunu sunu daje fii moo waral sunu mbooloo bi nu booloo. Mhm. waaw plan d'action yi bëri na mais biñ la ci mën a siteel rek mooy incha allahu rabbi bëgg nañ def tournée nationale mooy fépp foo xamante ni jaaykatu euh, ambulant wala tablier mi ngi foofu danañ sol suñu boobu taal suñu oto dem foo waxtaan ak ñoom fexe ba boole leen ci. organisation bi loolu première la beneen ba dinañ fexe ba ak ak yelleef bi nga xam ne nii ndaw réew mi am nañ ko ñun marchand tablier yi ñu gis suñu bopp loolu bokk na ci li nga xamante ni moom laa la mën a siteel mais programme yi barina parce que am nañ ay projet euh, am nañ ay projets yoo xam ne ñu ngi koy ñu ngi ciy liggéey te incha allahu rabbi waxuma la président mais partenaire bu ñu taxaw pour jàppale ñu ci dinañ ci ànd ak yow liggéey. Mhm. association association bi au niveau national la. presque mën na ne jàpp nañ ni am na neuf régions yoo xam ne bokk nañ ci xam naa bu ñu tee lim dana yaa dana gudd mais am na neuf régions euh, Thiès gi nag lañ njëkk a defee sortie euh, muy suñ première sorti mais keroog bi ñuy def assemblée générale ba Touba lañ ko defee yàlla def nag bañ ko tàmbalee ba léegi vraiment ñu ngi ciy gis ay avancement xayma xayma bi ñu mujjee def mooy 5000 membres mais yaakaar naa instant bi nii bu ñu taxawee bu ñu defee taxaw seetlu ñu ngi ci 10 000 quelques membres te xam naa ne fii ak 3 wala 6 mois parce que adhérents yi ñu ñu ci bëri ñu ngi taxaw di xaar seulement organisation beeg liggéey bi dafa xaw a difficile moo tax ñu bëri ñu ne leen ñu xaar mais instant bi ñu ngi ci 10 000 et sama kàddu gu mujj. mooy mbooloo mooy doole. mbooloo mooy doole yéen marchand tablier yi yéen marchand ambulant yi ngeen xam ne ñun danoo yor loo xam ne nii xamuñu ko pour ñu xam ko nag il faut ñu essayer booloo nekk benn di xàccandoo di tegandoo. boole suñuy kàddu boole suñuy bëgg-bëgg boole suñuy gis-gis yaakaar naa loolu bu ñu ko defee képp koo xamante ne ni kilifa nga laa wax ci réew mi da nga ñu soxla parce que mbooloo lañ soxla te ñun wax dëgg yàlla li li ñu toll ëpp na bëri nañ trop mënuñ ko sax xayma mais dañuy xool li liñ ci mën a xayma rek ñu wax ko lii daal moo doon kàddu yi ma ci mën a jàllale incha allah.